walla ay nit yu góor waaye message am daf koy véhiculer ci biir Sénégal naka noonu sam ci bitim réew mu def ci jéego yoo xam ne la jéego yu ama am solo la ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, daawate muy woote jëmale ci lislaam bil xikma wal mawidatil xasana te nga ànd ci xereñ ci euh, bu ñu toog moom nag euh, yi ñu war a waxtaanee dafa bari mm-hmm. ndax réew mi yëpp ay questionnement ngi ci li aju ci wàllu daara ji lu aju ci wàllu rawatina jamono ji ñu nekk ni àdduna bi nekk ci kanamu jaaxle muy feebar boobu nga xam ne euh, gàgloo na docteur yi waaye itam gàgloo na askan yi ku ci nekk mu nekk sa noon boo xam ne booy bëgg a xeex ak moom itam daanaka mu ngi wax ne gisuloo ko hmm. euh, waaye lan mooy saafara saak lan moo ci position lislaam orientation wu lislaam ci wàllu woowu dinañ waxtaan ak moom ci wàll woowu ak yeneen tomb euh, waaye Serigne euh, Cheikh Ahmed Tidiane euh, Macky mm-hmm. ginnaaw bi ñu la tasagalee ci émission bii di tànneef mm-hmm. ñu tànn la tey ngir war a waxtaan ak yow loo xam ne askan wi mën nañ ko jagalee seen dund tey ñu war ko tàmbalee rek ak benn tomb laaj mooy bi nga xamante ne feebar bi ñuy coow muy coronavirus bi law na dem na ba àgg ci benn étape boo xam ne euh, ñay saytu wàllu askan wi ak doxalin génnee nañ benn tëralin ne euh, tëral nañu lii di orienté nit ñi euh, taxawal njàng mi ci daara yi ak yu mel noonu naka noonu itam bépp dajaloo boo xam ne dafay indi luy war a mën a tasaaru jàngoor ci mu mel ne itam côté boobu dafa am benn parti bu am solo boo xam ne nitu diine yi uh-huh. euh, joué nañu ko ci ndax Sénégal mooy réew moo xam ne seen gàmmu yemul ci benn bés uh-huh. yemul ci benn weer waaye weer yëpp la bés yëpp la uh-huh. nga gis toujours ci médias yi ñuy annulé seen seen seen seen doxalin ñuy annulé seen doxalin est-ce que loolu kon mën wax ne beneen firnde la boo xam ne dafay wane ne l'islam ci boppam Euh, projet de société la dafa ñëw pour defar société bi nekkul diine bu wow. fa tabaarakallahu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Euh, Saad Xasan fa tabaarakallahu ñu ngi leen di nuyu ci suñu télé bu tedd bi nga xam ni fa tabaarakallahu mooy Walfadjri di leen sant itam ci seen euh, ñëw fii nga xam ni seen kër la ndax ñu nag yéen yàgg nañu. di itam sargal émission bu mag bi fa tabarakallahu nga xam ni li ñuy ñaan yàlla mooy yàlla dugal ñu ci biir turu émission bi boole ñu ci ñu ci tànneef yi ndax xam naa dangeen baax rek waaye ñun tabarakallahu yegg nañu foofu yegguñu fa waaye nag nañu ñaan yàlla boole ñu ci biir di nuyu nag réew mi yëpp tabarakallahu di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ko teg sa loxo Oustaz Assane fa tabarakallahu waaye nag di fàttaliku itam jàmbaar ja suñu ustaas bu mag ba tabarakallahu alxaaji Sidi di ñaan yàlla yàlla yokk yërmandeem yàlla yóbbu ko aljanna fa tabarakallahu ustaas Xasan da nga dugg ci actualité boo xam ni moo moo moo xew ndax itam yàlla mooy indi jamonoom ci façon num ko neexee waaye yàlla itam fa tabaarakallaahu dafa am lu mu jàngale surtout nag ci wàllu lislaam bi nga waxee muy diina joo xam ni toujours diina jàppandi la ne li nga wax sax léegi ci wane lislaam ni muy jàppale société ndax lislaam li ko tax a jug mooy soo xoolee baat bi toujours al islaamu ay waa ci mu génne ci fexe ba ñépp mucc mooy baatut lislaam soo ne mucc nag yàlla waxoon la jàngal la nit ki ni muy fexe ba dara bañ koo jot xam nga bi mu la wax ci alquran ku anfusakum wa ahlikum naara loolu dafay dellu ci nit ki saa su mën toll rek lislaam mi ngi koy fegal di ko wax fi mu war yam ci diggante dundam fi mu war ci diggante société waaye tabaarakallaahu comme ni nga ko waxee ndax itam ad diinu yusrun yonent bi sallallaahu alayhi wa wax na ne diine jàppandal la te itam dis diine dafa ñëw itam ndax li ci diine yëpp damay seetlu li feebar bi tere yépp dafa fekk diine tere woon ko ndax diine li mu bëgg mooy nit ki fexe d'abord ci fi mu war a yem sa san dafa jàngal nit ki ni nit ki bu mu bare génn génn bu bare yàlla waxoon nañ ci ci alquran xam nga bi wax jigéen ñi nañu yem seen néeg góor ñi tamit nañu dox seen soxla te delluwaat seen néeg fexe ba itam nu ñuy sete te ñu ngi wax wàllu raxasu lislaam jiitu na ci wàllu set ndax yàlla waxoon na la ko ci alquran sooy jàpp ni ngay jàppe raxasal sa loxo raxas sa kanam raxas sa tànk yonent bi sallallahu wax na tamit ni la an nadaafatu min al iman nga xam ne mooy porte bi wax na ne set dafa bokk ci gëm yàlla nga jàng ni nag feebar bi nga jàng si ni li mu jàngal nit ki mooy nit ki set ndax set nag si ustaasat dafa bare façon du set rek ci wàllu jëmm waaye tamit war nañu fexe jikko yi set itam ndax yenn jikko yi nga xam ni taxawaalu bi ci mbedd mi sooy xel sooy xool dugg ci loo warul dugg wax loo warul wax dem foo warul dem làmmiñ bi di tudd lu mu warul tudd bët bi di xool li mu warul xool bakkan bi nooy li mu warul nooy te yàlla waxoon leen ne waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qulil mu'minin yaghuddu min absaarihim nañuy gëmm seen bët ci lu xaraam ci lu ñu warul dégg nga de nañuy bañ a tudd lu ñu warul tudd xam nga yàlla boobu mu ngi raxas làmmin yi ndax soo jàpp sax soo raxasee sa làmmiñ dafay raxas léegi si tuddoon ci lu set ci lu bon yépp moom ngay moom ngay gàllax ndiku sotti ko li bët bi gisoon moom ngay raxasu li loxo bi laaloon ci lu xaraam moom ngay raxas nga xool nga xam ne ni jàngale yàlla defe naa ni tey jii moom la lislaam moom la tubaab bi appliqué ngir ñu bañ ñu mën a mucc si feebar bi ndax ndax tabaarakallaahu day wane ni nit ki daal war na fexe nu muy yare boppam ba nga xam ni warul def lu mu warul def warul dem fu mu warul dem mooy li li téere fiq mhm. boo yeewoo raxasal sa loxo balaa ci ndab li. ma ngoog. Euh, yooyu yëpp. hakaza loolu dafay dugg ci wàllu as an nazaafa. Mm. nii dafay dugg ci wàllu set. Mm. aywa mu nekk loo xam ne nag xam nga lislaam moom suñ ko tuddee ci réew mi këru diine yi ñoo représenté lislaam mm. te këru diine yi yàlla dogal na ni ñu am comme ni nga ko waxee daje yoo xam ne du jeex ci wàllu ay daje. dem nañu ba tabaarakallaa sooy seet sax nag ci wàllu aada dañuy dem ba daje yi dafay mel ne dafay xaw ëpp ndax itam dafa am lu muy dafa am dafay mën a dem ba am lu muy nuru te yooyu yëpp tamit nit ki war na fexe nu ko organiser ba mu gën a jariñ askan bi bañ nekk rek daje pour daje folklore nga xam ne moo xew ci réew mi loolu nag te am am na daje danay faral di wax ni Oustaz am na daje daje yu bari du ñëpp nag waaye am na gàmm yoo xam ni dañuy wooteel diine te soo demee nga xam ni yàlla mere na ña woote ndax lépp lu yàlla tere rek di nga ko gis ci daje boobu ci wàllu ixtilaat bayna rijal wa nisa ci wàllu jaxasoo bu mu mënti doon rek ci wàllu foog yi wàllu folklore nga xam ni yàlla wax ni toujours dans les di wax ndax est-ce que dañ fi ñëw pour fo te foo indiw ñu fi su ko defee nag yu mel noonu yëpp defe naa ni su dul feebar bi sax war nañu mën a am nañ ko organiser ba loolu wàññeeku. mais nag waaw mais su feebar ñëwee nag dafay laaj kilifa diine yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci wàllu diine ji ñoom ñoo war a njëkk yar seen njaboot ndax responsabilité Seydi Hassane la boo xam ni du respons du responsabilité état rek ndax danay faral di wax ni ki woote bisam màggalam wala gàmmoom ña fa ñëw ñëpp sa responsabilité la ñu kon nag ku fa ñëw fe jël fa feebar ëllëg yow ma nad'u kulla unaasin bi imaamihim ok responsabilité bi yow yaa koy gàddu te yàlla waxoon waxoon kii waxoon nañ ne al wiqaayatu xayru min al ilaaj hmm. wala bi aydikum ila tahlukati hmm. xam nga ni fii feebar baa ngi fi hmm. dugg si na ñu wax la ni la feebar bi su ñëwee day wàlle te wàlle bi li koy li muy wàlle nit mooy jaxasoo ku ku feebar su la waxeek yow mën na la wàll su la nuyoo mën na la wàll su su su su su saqatee mun na la wàll nga xam ne nag mbooloo moom mun na ko indi yow ngay kilifa diine gi balaa nguur gi di wax ni arrêté na loolu yow kilifa diine gi yaa war njëkk arrêté loolu saa saa ndax lislaam la ko digal wala tulqu bi aydiikum ilaa tahluka su boobaa nag yow yaay doon responsabilité responsable ñi nga xam ni ñëw nañu ci sa màggal wala sa gàmmu wala sa ziyaar ëllëg yow la yàlla di laaj lu daw waxoo leen ni leen nañu bàyyi xam nga ni feebar bi yoxal na leen ko. Euh, sëñ Cheikh Ahmad euh, Tidiane taal mhm. foofu nag euh, dina am ab laaj bu fa juddoo. Mhm. ndax digle jafe na waaye jëfe itam beneen jafe-jafe la. Ah. ndax nit ñi. léeg-léeg nga gis ci sax ci xew-xew yi ci jamono yi. Mm-hmm. nga gis koo xam ne dafay mel ne def ci xaw a ànd ak fanatisme. Mm-hmm. mu ne daal par force daal dinaa def lii lu musul am amul ak mel noonu. ndax mm-hmm. façon boobu itam orientation beneen lay pour nit ñi li nga xam ne xëy na may nañu ko ci ne formé nañu li ñu war def nañu. xam nga li gën bon ci nit lu lu lu bon ci ba ci diine sax yàlla buggul ko ëppal ci diineem nga diine laa ikraha diin. addiinu yusrun la masalan yow daal demal ngay jàpp nga julli ni ko yàlla bëggee te yàlla sax wax na soo demee ba julli gi sax mën a am natt mën a julli taxaw toogal nga soo fekkee da mënoo julli toog nga wéeru julli waaye léegi kooku yàlla mu ngi te kat yassiru wala tuassiru la yonent bi sallallahu alayhi wa wax su fekkee nag yow mii dañ la wax ni la fa tabaarakallaahu feebar bi mi ngi fi nga ni sama sëriñ mën na mën na fegal feebar bi. mën fexe ba feebar bi <laughs> xam nga loolu Seydou Xasan moom damay ragal ni loolu dañuy fett dañuy fàtte ni ki nga xam ni moo yebal feebar bi du sëriñ bi. Hmm. feebar bi soxlaam lay dox. Hmm. te ki ko yebal ku mu yebal nga dox sa soxla ba matal ko te mooy yàlla subxanahu wa taala hmm. ndax bari na sëriñ soo xam ni taalibe yaa ngi leen jàppee yàlla. wala taalibe taalibe yi ngi leen jàppe ni ñoom mën nañu lu yàlla mënul sax ci ci baal ci waxam bi mm-hmm. ndax gis nañ ko fi mm-hmm. wax dégg nañ ko fi fii mm-hmm. su ko defee nag moom sëriñ boobu defe naa su mënaloon boppam dara ci wàllu àdduna te yàlla du ko du ko du ko du ko rey ñu takk ko suul ko ba mu jekk mu nekk fa mu nekk te kenn xamul si sëriñ ba la mu nekk te ñëwaatul ba tey pour wax ni fii laa fii laa nekk kon nag feebar boo xam ne kenn mënu ko gis te dafay dugg ci xadar xaaji xasan hmm. ndogal dafay dugg ci ndaga ndogal te ndogal nag dafa bokk ci gëm ci imaan nga gëm ndogal hmm. ndax nattu la ndax nattu la waxuma nag ndogal boo xam ne dañ la wax ne la yegg si na ci sa biir dëkk hmm. nga ne du ma ko gëm wala nga ne ndogal la boo xam ne sama sëriñ mën na ko dàq yaa ngi nax sa bopp te sa sëriñ xam naa ni sax su fekkee jaar na ca la yàlla bëgg du la digal nga def loolu nga def te loolu nag lu lu lu yàq lu bëri ci réew mi Seyd Xasan ndax itam nit ñi toll nañu foo xam ni dafa am benn mag mu baax bu ma wax ni sëñ bi dañu war a ñaan bayre bayre tariqa yi jóge ci tariqa yi dugg ci diina ji <laughs> c'est ça ndax bayre tariqa bi hakaza hmm. ndax dangay gis diina bayre bi dugg na ci tariqa yi ba fàtte diina ji bu diine ji tuuti ñëw bu tarixa bi wootee mu ku laal diine ji kenn du la wax dara mais ku laal tariqa àdduna jub mm-hmm. waaye léegi nag su boobaa nag dañuy xool ñun fan lañu ñu toll suñu pas-pas ci yàlla sa xasan waaw te garabu tarixa mu ngi sax ci suufu diine foog xam nga xam nga foog diine ànd foog tariqa ànd ak diine du sa ànduñu sax tariqa dafay fekk diine mm-hmm. ci li diine digle ndax tariqa dafa ñëw ngir ngir dëggal woote yàlla bi ndax yàlla subhanahu wa su la doon wax ni wabtaxu ilayhi alwasilata mun nga gis yoon woowu yoonu tariqa boo xam ni dafa dafay dafay jëme nit ki ci mu yegg ci boromam la ndax ndax bu jaar yoon warul am luñ ciy jame diine sal xasan yi suñ maam suñ tubaa waxoon wa kulli wirdin يريد المريد لحضرة الله ولن يحدا سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى إلى أحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب loolu la nit ñi war a dégg قطعا على الصواب mooy lan ñoom ñëpp tant que ñu ngi topp ci yoonu sirat al mustaqim ñu ngi ci lu wér waaye ku si toppul yoonu sirat al mustaqim Oustaz Assane dafa ne nekkoo ci lu wér kon nag su ko defee loolu lu jar a bàyyi xel la waaw ñu xam ni yàlla ak sëriñ bokkul su yàlla indee mbiram ñu xam ni indi na ko te ba nga koy indi sëriñ bi yëgu ko ñi gën yàlla yépp nañu gën ni mbir mi yegsi nañu te moytu mbir mi moom suñu bëggee mujj voilà li nga wax nii ni mu leeree ak ni mu mënee convaincre nit moo may tax ma posé benn question foofu itam xam nga am na benn comité boo xam ne euh, taxawal nañu ko bi crise bi amee ñooñu ñu ngi euh, wax parce que ñoo seen xam-xam ci wàll woowu la màcc muy docteur yeeg euh, comité yu sax gën na yaatu loolu am na ci ñoo xam ne wàllu sécurité bi wàllu dem beeg dikk bi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ak la la ñoo ñu ñoo construire benn comité boo xam ne ñoom ñooy génnee ay orientation di ko jox askan wi pour ñu mën a mucc ci feebar bi mais absence bi nga xam ne nitu diine absenté na ko ci est-ce que créé wul problème parce que nitu diine yi ñooy def contact direct ak euh, population bi juróom yoon par bés juróomeel ba sax nekk daje boo xam ne bu yaatu la muy julli juma ñooñu est-ce que bu ñu leen impliqué woon waxuma rek kenn ku ci nekk nekk ci koyam di wax waaye ci plateforme bi ñu teg est-ce que ñoom amuñ ci woon place pour nag mën a leeral ne bu ñu waxee ne bu ñu def lii loolu wér na ndax lii ak lii lii. Oustaz Xel fa tabarakallahu wax bu am solo question bu am solo la ndax itam lu mel ni gis nga keroog président de la république. pour wan la importance nitu diine mooy dafa ñaan kilifa diine yi. ñu topp ci ñu topp ci ci li nga xam ne moom la ñu la ñu bëgg def dimbale leen ci. Hmm. waaye xam nga li nga wax Seydi Oustaz Assane lu jar a bàyyi xel la ndax itam diine dafa war am place tey jii. doxalin ci doxalin. Hmm. waaye dafa war am place ci biir suñu gouvernement yi. Hmm. ñun surtout réew mi tey waroon nañu am un ministère boo xam ne dafay dugg ci wàllu culte. culte en général en général nag ndax réew mi comme réewu. ñëpp la ñëpp la. mais ñu fexe ba organiser ko d'une façon boo xam ni dina am ay représentants diine ci biir wax waxuma nag ay représentants diine yi xew léegi. ñu fexe ba xool intellectuels yi nekk ci biir këru diine yi. ñu jox leen des post de responsabilité. ñu doxal ni gars yi di doxalee ndax soo jëlee si biir docteur yi sax am na ñoo xam ne ay doomu sëriñ lañu. ci biir des des intellectuels de haut niveau ñu ngi ci biir. mën a doxal li nga xam ni moom la réew mi war te loolu rek moo doon dimbale euh, suñu gouvernants yi. Mm-hmm. ndax diine dafa fort ci Sénégal. exactement dafa am doole. li nga wax ni dëpp waaw li nga wax ni lu am solo la. Mm-hmm. waroon na tey jii mu am benn comité boo xam ni. ay comité diine la. wax nit ñi lan mooy wàllu responsabilité nit rek. Mm-hmm. xam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kullukum raa ko kullu mas'ulun an ra'iyatihi tey jii ku ku ku ku ku ku def boppam tax ku nekk war nga défendre sa bopp ci feebar bi ci mm-hmm. jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale te dogguma la sax waaye ki nga xam ne xamul yooyu yëpp jàngul bu baax te am gëm gëm bu ëpp xam-xamam dafay jàpp ne déedéet par force dinaa def lii même bu fekkente ne sax dara dinañ fekk fekk xamul ne lislaam bi lii amee orientation am changé na dem ci leneen. mais c'est oustaz da ngay xool islam sax dafa am lu muy àtte xam nga islam wax na la soo déggee benn feebar mbas ci benn réew su la fekkee ci réew ma yow amatoo droit génne. soo ko fekkee ci su fekk soo ko déggee ci benn réew amatoo droit tamit dem ci benn réew moom. dañ ci waaw ah, quarantaine ngoog. quarantaine ngoog. islam moo njëkk quarantaine. su ko defee nag mais nag li am solo li nga wax léegi mooy fexe ba gouvernement yi suñu suñu gouvernement bi. ñu fexe ba am ay représentants diine yu nekk ci biir gouvernement bi. rawatina ci yoonu mel ci yoonu yoonu mel nga xam ne dina taxaw. Mm-hmm. wax ak nit ñi lan mooy atte l'islam ak diine. ci biir crise bu mel nii. Mm-hmm. nga xam ne du atte wax ma nag ayata tariqa. Mm-hmm. tey jii kenn warul wax waxu tariqa tariqa amu fi place. responsabilité boo xam ni xam nga sax daan daan faral di wax mu ne Sénégal war nañu fexe ñu wooteel benn bis journée boo xam ne journée diine la doo ko dégg. <laughs> journée d'islam. kese kese waaw. su loolu suñ ko doon wootee danañ fexe tey su li amee lislaam dana taxaw pour wax ak nit ñi ni diine du tariqa. ndax da nga dem ba dégg seen biir seen biir déclaration ñoo xam ni xamuñu dara. ay jaahil yoo xam ni dañ ciy profitu ñii ñu ngi profitu di xool positionné seen sëriñ. ñii ñu ngi profitu di xool seen parti politique. ñii ñu ngi profitu di wax leneen. te fekk euh, crise bi. fi mu toll weesu na foofu hmm. ki responsabilité bu rëy la crise la boo xam ne tey su xasoon dugg yam ci yàlla musal kenn du ci mujj du tijaan bi du xaadir bi du laayeen bi te itam suñ lay kum si daloon itam duñ la jël mukk yóbbu la fa nga gëm hmm. fuñ lay faje lañ di fuñ lay faje hôpital <laughs> te nee naa hôpital soo fa demee. kon teel a jóg li jagal loolu day war. doo taamu tamit si yaxsan hôpital doo fa dem ni man tijaan laa dañu wutal tijaan. mu faj ma hôpital tijaan wala hôpital. hôpital murit <laughs> xamal lu jege la est-ce exemple bu jé lu jege la. exactement mu mel ne foofu feebar bi daal musiba la waaye mën nañ jàngal lu bare loo xam ne. buñ ci jógee ñu war a changer suñu comportement. très bien war a adopté wu war a gëm mhm. li nga xam ne l'islam mu ngi ko doon oriente nit ki. Mhm. ba ne la booy boobuli. Mhm. tegal sa loxo ci sa gémmiñ. booy booy tisooli. muural sa kii ak sa ak sa ak sa yére waaw. bul tufli waaw mu ne al busaaqu fil masjid xatiatun wa kafaratuha dafnuha hakaza nee na tufli rek ci mm. biir jàkk mm. musiba la moo xam ne xam nga tufli sax sëriñ bi même sudul jàkk dafa civilisé wu mm-hmm. dangay faral di wax ñun suñu pays africain yi rek ngay gis nit ki xaar rek fu mu mm-hmm. ci jàkka yeeg ci dafa civilisé wul Seydi Hasan mm-hmm. yoo xam ne li nga wax léegi rek l'islam fekk na jàngale woon nag mooy civilisation l'islam dafa bëgg civilisation nit ki civilisé yar boppam ci xam la muy def defe naa loolu su su ko nit ki defee rek oustaz Assane mun na mucc si yëpp. exactement mooy li may faral di wax ne. impôt impôt yi ñuy laaj nit dañ ko war a yokk ndax li ko waral mooy li ñuy def. hakaza ndax ñaata ñaata casse à jeter ngay sànni ci mbedd mi. très bien ñaata yoon ngay tufli. ñaata mbuus. mais kon impôt bu ngay fay sax euh, matagul. c'est très important. <laughs> mu nekk ay orientation yoo xam ne. Mhm. yaakaar naa feebar bi war na mën a tax ba ñu gën a. am comportement yu baax. yar suñu bopp. Euh, mbokk yi ñu fàttalee ne ñu ngi ak seen émission bii di tànneef. ñu mm. ci dalal nag kenn ci tànneef yi. Mm. di Cheikh Ahmed Tidiane euh, Maty Tall. Euh, bokk ci famille boo xam ne bu ñuy joxañ ak baaraam la. Mm. waxuma rek ci Afrique soowu jant bi waaye ci àdduna bi yëpp. ndax boo demee ba fu mel ne Nigéria boo demee fa ba fu mel jeexital ba law na fii ba fu Afrique yem. Mm-hmm. kon. loolu lu am solo la ndax bu ñuy wax euh, Cheikh Omar Foutiou Tall ak jeexital bi mu bàyyi ci Afrique mm-hmm. wàllu résistance ak déggu ci li ngay woote di ca dugal nit ñi ànd ak pas-pas boobu mm-hmm. loolu itam lu lu taarix di wéy di saxal la mm-hmm. kon bu ñu toogee ak euh, kenn ci kër googu ñu ngeek euh, ñu ngi ci benn kër kër goo xam ne lu baree bare mën na ca ruusee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane balaa ñuy jóge ci euh, mbir moom rek muy euh, li nga xam ne dugg na ci biir Sénégal dañ ko doon séenee fu sore mu ñëw ba dugg muy feebar bi. Mhm. Euh, benn laaj laay posé bu ko defee ñu demaat ci yeneen tomb. Mhm. mooy ne feebar bi ci boppam feebar la boo xam ne dafa gaaw a law. Mhm. ñeen nañu ne dajaloo warul bu fit bu demoon par exemple ba docteur yi. wax ne sax dajaloo di euh, julleendoo ci xat-xatloo ki mel noonu. Mhm. bu ñu waxoon demoon ba gëstu boo xam ne loolu du mën a nekk ndax dafay indi problème ndax bu boobaa lislaam dina ànd ak ñoom ci loolu. tabaarakallah Seydi Xasan euh, jazaakallah loolu moom exemple bi léegi rek soo demee ci islam nangu na ko ndax xam nga ba ci noddu. Mhm. soo demee tey jii soo dee dañuy wax ci temps crise mhm. wala su fekkee sax dañu ne taw bu bari nga xam ne soo génnee loru soo dee noddu hayya ala salaati doo ko fara ko wax parce que woote woo pour daje woote woo pour daje am na ngànt bu la teree def na asalaatu inda buyutikum su boobaa ngay wax <laughs> nodd boobu moom <laughs> xam naa gars yi mokkale ko ñu waaw nodd boobu xam ne ndax Sénégal tàmmuñu boo demee ba ci ay xay ala salaa xay ala falaa ñëw leen ci julli ñëw leen ci julli gi que mbooloo amul nga mbooloo amul da ngeen ne asalaatu inda buyutikum leen ci seen néeg mooy li mooy mooy li ñu leen wax tey hmm. restez chez vous hmm. toog leen seen kër ndax hmm. lor am na am na fu muy toll nag xëy na incha allah xëy na yàlla du ñaan yàlla ñu bañ a àgg foofu ñu bañ a yegg foofu. waaye bu àggoon foofu itam. waaye su fekk islam prévoir na nga ne islam njëkk def quarantaine nga toog sa kër bu loru. ndax day dugg si aaya ba rek wala tool ko ay jéego mi la taxaluka. bul sànni sa bopp mukk ci lu lay lor hmm. su ko defee nag su boobaa asalaatu inda buyutikum hmm. toog leen julli gi nag wax tey bu leen ñëw xaya ala salaat bu leen ñëw hmm. waaye nag tey julli gi julli leen seen biir néeg la toog leen seen biir néeg ngeen julli su ko defee ngeen mën mucc waaw euh, damay randatu tuuti waaye demaat ci beneen accès boo xam ne daanaka xaw na jege li ñu nekk mu mel ne comportement li ñuy wax yëpp wane na ne problème comportement am na ci askan wi maanaam wàllu doxalin ak wàllu tëralin te ñu seetlu ne même suñu école publique yi amoon na noo xam ne euh, éducation civique. nga xam ne dañu lay jàngal ni ngay dundee ci biir askan nga xam ne kenn nga ci mbooloo. Mm-hmm. yooyu yëpp mu mel ne amatul léegi. Mm-hmm. bi mu amatulee am na yeneen yu ko remplacé te baaxul. Mm-hmm. est-ce que kon jotul sax ñu seetaat. suñu programme euh, yi ñu jàngale. ban sénégalais lañu bëgg a produire. ndax est ñun dañuy. éduquer wala dañuy enseigner. waaw Sidi Xasan loolu tabaarakallahu lu am solo la xam nga su fekkee dëkk la boo xam ni mun nañu wax ni lislaam am na fi doole. Mm-hmm. Euh, c'est un pays laïque comme ni ñuy wax waaye nag lislaam la yàlla dogal mu ëpp fi doole Sidi Xasan te li woon li doon yoon xam nga malheureusement dañu yàgg nax nga xam ni tubaab yi dem nañu ba nax ñu ba imposer ñu seen éducation. Mm-hmm. lépp lu ñuy defar rek éducation tubaab yi la ba di éducation civique boobu tubaab yi la waaye tey waroon nañu toll si Seydi Hassan foo xam ni waroon nañu jàngal al adabul islaam yi ñu boole ko ci suñu programme école suñu jëlul lépp sax mais islaam li mu jàngale ci rafetal li mu jàngale ci comportement nan nga yare sa doom jëflante jëflante ci lu baax mm. dégg nga de al islaax mm. dégg de mm. dafa naan loolu suñ ko doon jàngale innamal mu'minuuna ixwatun tey. fa aslihu bayna axawaykum. doy na projet doy na projet boo xam ni. mënoon nañ ko génne rek ni lii dañ koy boole ci programme mu jàngale école. ngir loon parce que nag diine war na fi am boobu yoon. waaye problème bi mooy ñi ko war a def xamuñu ko. ñu ko mën a def mënuñu ko. ah Kaza Seydou Hadj ça veut problème bi ca ca commencement ba la. Hmm. masalan ndax nañ commencement ba. ñi si ñi si ñi si ñi si nekk jiit mu xamuñu xalaatuñu sax ne lislaam am na loolu am na loolu. parce que xamuñu leen ko. Hmm. ñeleen di jege itam ci tuddi seen bopp ay këru diine wala ay nitu diine. ñu ngi xool seen intérêt boo xam ne du ñu bëgg gêner chef bi fi nekk. Hmm. loolu du est que du musiba. <laughs> waaw te loolu nag musiba hmm. ba nag chef bi fi nekk doo ko wax ni que lislaam lii la wax. ci wàllu éducation. l'islam dana soo ko toppee ci lii mën na la dimbale ci sa éducation de baas mais tey jii Seydi Hassan mun nañu def suñu njaboot gi ku si dugg école yaa ngi xool jikko yoo xam ne d' abord école ba nañuy comporté woo ca école ba ni ñu lay jàngale solu bi sax ni ñu lay jàngale wax ji amul tey xale buy jàng ecole yaay gën a nekk ci tabaarakallahu def yëfu doo xam ne lu baaxul mm. bokkul ak xale buy jàng alquran su jugee sa daara ja mm. suñu dajee nga xam ñaar ñi am na ñu leen yare mm. te dafa mel ne sax ñun euh, dafa dem ba mu mel ne génération bi fi nekk sax. Mhm. dañu dem ba ñuy commencé di ñàkk suñu culture suñu aada ak suñu cosaan sax. ñu ngi koy ñàkk ak suñuy làkk yi sax. ndax li ñuy làkk ci mbedd mi léegi nekkatul wolof nekkatul français. kenn xamul lan la am na sax euh, anecdote li gars yi di joxe exemple. Mhm. benn phrase rek nga dugal ci. ñeenti làkk yu bokkul. <laughs> da ngay gis kenn mu ne la demee deme dinaa ñëw seen gàlle incha allah. <laughs> demee français la dinaa ñëw wolof la. gàlle euh, pulaar la. incha allah incha allah arab la ñeenti làkk ci benn France. te la yaakaar ne wolof ngay làkk wala. xam si xasan sooy xool sooy xool dinaay faral di wax ni yi nga sooy demee suñu dëkk dëkk yi jege ñu ñu jege. Hmm. lu mel na tey Maroc nga xam ne suñu dëkk suñu xarit la ñu. Hmm. Maroc dañuy jàng français mais da ngay gis koo xam ne dafay dem am doctorat am ay ay ay ay diplôme yoo xam ne mais baatu arabam lakkam yaani darajiyam bi muy lakk. daf koy conserver. koy conserver ba nga xam ne su lakkee français sax dangay sentir que ni. accent bi accent bi foog mu des fa. <laughs> waaye ñun tey Sénégal ku si lakk francais nga yaakaar ni kii Molière rek ko jur. day am complexe sax wax wolof. nga jéem a rouler air yi tuuti. nga rouler air yi <laughs> dem ci biir. Sëriñ Sidi Hassan même da ngay ñëw sax si bureau ni asalaamaaleykum duñu la faale. bonjour bonjour ngay nuyoo. Hmm. nit ki dana am complexe wax. wax ni man ci fii laa bokk. te asalaamaaleykum Sidi Hassan loolu ñaan la. boo ko waaye ñëpp xoolaat la. su ko waxee tam ñëpp xool la ni kii est-ce que du ibaadu sax loolu lañ lay wax. <laughs> su ko defee nag yooyu yëpp nag. perte perte la yoo xam ne ñàkk nañ ko dañ ko ñàkk dañ ko ñàkk te itam ñi nga xam ni ñoo ñu waroon jiite war ñu si dimbale. xëy na ña nekkoon ak ñoom daawul ñu leen wax dëgg ba lii law na tey ba yàqu na daal te xanaa yàlla rek dimbali ñu yàlla rek di ku nekk nag yaraat sa njaboot ci façon bi ko yàlla bëggee su ko defee yow tamit nga dugg ci kulukum raain boobu yaay respon tey ji nit ñi ñooy responsable seen njaboot sa njaboot nu mu mel rek te yow nga xam ne yow lii la ko yàlla di laaj ëllëg su ko defee yaa ko yar ci sa façon ak façon bi nga xam ne moom la lislaam bëggee su ko defee loolu nag moo ñuy dimbale defe naa pour ñu mën a avancer ci lu bëri mhm. euh, euh, Serigne Hassan jërëjëf Serigne Cheikh Ahmed Tidiane euh, moom lañu dalal mhm. di ko dalal ci seen émission bii di tànneef mhm. bu ko defee itam Serigne Cheikh dinañu ñëw ci benn tomb muy mel ne benn coronavirus lañ doon waxtaane réew mi itam moom lay waxtaane waaye am na yeneen coronavirus yoo xam ne boobu fekk na leen mu bokk ci ñàkkum xëy ci ndaw ñi. waaw ndaw ñi dañu ñàkk xëy. Mm-hmm. wala xëy bi ñu bëgg moo moo moo amul muy taamu. waaw Seydou Xassane ah xam nga mm, kooku nag moo raw kono coronavirus bi <laughs> waaw moo ko raw ndax itam ndax li muy indi. Mm-hmm. ñàkkum xëy bi tey ni muy rey ci nit Seydou Xassane. Mm-hmm. corona reyu ko eh, <laughs> ndax itam xale bi nga xam ne ñàkk na xëy xalaatu lu dul xaaral ma dogale ji agressé rey ko ko am lu ma dunde am itam lu te kat dundin bi yëpp du dund dara lu ma naane sàngara lu ma toxee yàmba pour gën a mën a sàccaat pour gën mën a sàccaat mm-hmm. te xam nga loolu tamit musiba la moo raw coronavirus bi mm-hmm. beneen bi tamit mooy xal am na xale yoo xam ne tamit ñu góor góorgóorlu mm-hmm. ni ñu góorgóorloo mooy dem nañu ba xamatuñu li ñuy def ñu wut lu ñu jaay di wër ci mbedd mi waaye xamatuñu fu ñuy taxaw pour jaay. lépp xat na. fépp xat na. Hmm. moo tax tey jii ñu encombré tal nga jàng si ni. Hmm. xale yooyu tamit manque jàngale wala manque xàmmee ku nekk war nga mën jaay sa jaay te duñ la toroxal soo xamee ni fu ma taxaw fii ñu jaay ma su ma jaayee ñu fekk ma fi. Hmm. du fi mën taxaw. beneen bi. gouvernement bi am nañ ci part de responsabilité bu mag a mag part de responsabilité bi mooy Seydi Hassan euh, politique dafa nekk loo xam ne dañuy yàgg nax as seen askan mm-hmm. politique day fooye askan ci benn façon mm-hmm. politique dafay ñëw soxla la jëfa dégg nga de dama la soxla pour campagne électorale ñëw na naa ñëw nax la naa la wutal liggéey mm-hmm. naa wut cent mille liggéey ñaa na su boobaa cent mille liggéey dina am ndaw li def ci dooleem def ci kàttanam ànd ak yow xeex ak xeexal la xam nga xeex ba muy xeex du du inconscience xeexu yaakaar la mais ndaw yooyu waaw ndaw yooyu nag li leen di naqati dañuy dem ba ki ngeen ko xam ne moo leen doon campagne loo xeex loo leen dikk dig leen mhm. cent mille emplois ngi ñëw su demee ba gagné talatu leen ndaw yooyu ndaw yi sax mënatuñ ko woo mënatu bañ bañat ko. yaakaar commencé tas ndax yaakaar commencé tas. Hmm. mais ndaw boobu yow mi nga xam ne yaay politique bi yaa gàddu ak xam. Hmm. war nga fexe soo wootee wala nga woo leen ñu soxlaal leen ñu hmm. campagnal la nekk defal la liñ lay defal. li waroon njëkk. ci politique yi suñu gañee ñu ñu gestu ndaw ñi. parce que ndaw itam Seydou Hassan réew mi ñàkkul liggéey. réew mi ñàkkul liggéey lii indi ay barça yi tukki ci géej gi. de ñàkk nose li ñu fi am daal. ñàkk mais ñàkk organisation. moo fi am. ndax réew mi yaatu na. ci fa lu ñu mën bayee. booy génn Dakar da ngay gis gauche droite ay. suuf soo xam àll bu dul jeex. amul montagne amul xeer. àll bu dul jeex Seydi Hassan. kon bu ñu xeexee naan ci suñ ko organisé. Hmm. gouvernement bi mais gouvernement yi nag fi muy sol ni tey bëgg lu neex tubaab yi. tubaab yi la ñuy liggéeyal dégg nga tubaab tubaab yi ngay gis tey ñoo ñëw jël suñu suuf si suuf yëpp subaab yi ñëw na jël nañ ko yeneen projet ñëw jël ko ay suufu jàmbur yi xale yi amatuñ fu ñu béyee mais loolu nag Seydi Xasan dafa nekk loo xam responsabilité bu rëy la mais xanaa ñu ñaan yegg yàlla nga xam ni comme pétrole la ngi fay Seydi Xasan xëy na su feeñee tooyal fépp xanaa ñëpp ba xale yi am xëy Uh-huh. <laughs> Uh, muy uh, tomb bu am solo boo xam ne. jar na xeex comme ni ñuy xeexee coronavirus bi muy ñàkkum xëy bi. Uh-huh. Uh, jërëjëf Serigne Cheikh. Uh-huh. Ahmad Tidiane Tall. ñu sant la baax baax ci tontu yu leer yi. waaye itam du ñàkk rek ñu ñëwaat ci beneen tomb boo xam ne bari na sax luñ koy càmbar ci jotaay yu mel ni bu ñu toggee ak borom xam-xam yu mel ni yéen ndax bu ñu seetee Euh, turaas maanaam ndono bi nga xam ne suñu mag ñi bàyyi nañ ko fi ñu jël exemple par exemple ki mel ne Cheikh Omar Foutiyou Tall ak li mu bàyyi ci wàllu mbind ak wàllu expérience mm-hmm. est-ce que jotul ñuy xirtal ñi nga xam ne ñu ngi ci université yi ñu ciy def ay thèse yoo xam ne ci la def seen jàngat donte la am nañu ko tàmbale ah. Mm-hmm. am nañu ko tàmbalee du ñoo xam ne dañuy jël benn mag. Mm-hmm. ñu def ci seen thèse doctorat wala yu ni mel. Mm-hmm. waaye loolu itam est-ce que jotul mu gën koo yaatal. ba nga xam ne li ñu am. dinañu ko gën a xam. ndax xëy na ñàkk koo xam moo tax ñu yaakaar ne amul walla ñu koy. wax nga dégg Seydou Xassane waaye xam nga Seydou Xassane li ci métti mooy ku ci jël benn bindu mag du jeex ñu jël bindu mag ñi def ci thèse du jeex mais dangay xool jeexital ba mu la dul am. la muy bàyyi njëriñ la. njëriñ hmm. dul am parce que itam suñu jëlee jàng mi yëpp ci université jël thèse mag mi Cheikh El Hadj par exemple jàngale ko. Hmm. gis nga fa fa ñu defe thèse bi. Hmm. foofu la foofu la livre ba di yem. jeex. wax bi jeex taal turwaar yi daal mooy moo ko. yi daal mooy nekk mooy mooy jàngale mooy nekk mooy. dégg nga ma la exemple tey xam nga ndax lan euh, bëgg lu neex arrangé wul dafa am loo xam ne arrangé wul tubaab bi masalan jàngale mag ñi. ndax seen jàngale yëpp ci diine lay lay lay lay dellu. ak ci lu baax. ki la bëgg nax nag du bëgg nga xam lu baax. Hmm. daf lay bëgg rek nga nekk ci. li mu nekk rek di la naxtaal. waaw di la naxtaal. Mm. xool dama la bëgg jox exemple si li nga xam ne moo fi am ci fan yee passé mm. ci jaasi Cheikh El Hadj Omar Fouti bi ñëwoon. bi ñëw. Seydi Xasan xam ne dangay xool Cheikh El Hadj Omar jaaseem yoru ko woon pour caaxaan yoru ko woon pour meuble. Mm. mais dangay xool lu toll ak jaasi Cheikh El Hadj Omar dugg ci palais bi. discours yi fa wax yëpp déggoo leen ñu ni yi ji jihaad a tax ñu wax ko mu ñëw. ndax lan premier ministre français bi toog te kat xalifa yaa ngi toogoon. baat boobu daal dañ ko ragal daal. mais baat bi nga xam ne moo taxoon jaase yi jug. jaase yi jug Cheikh Hadji Omar wala mujahidul akbar waaw. Mhm. defe naa ne waxoon li jaase ji di jëriñ. amoon na ci solo. moo ëpp solo mooy mooy li ma la wax ni thèse bi thèse yi nga xam ne mooy am. mel noonu lay mu mel noonu la complexe bi nga xam ne moom la ñu am. Mhm. ba duñu waxal diine. li mu li mu bëgg ñu waxal ñu ko. waaw ok hakaza. Mhm. ñoom gis nañu tubaab bi taxaw rek indi jaasi ku nekk xalaatoo sax wax ni jaasi si alxaaji bi jihaad a tax hmm. te xalifa yaa ngi toog ci biir nag télé bi. Hmm. barkeelu bi daal ak jaasi jaa ngi nii. ok jaasi jaa ngi taxaw. ñu defe ni hmm. jaasi ji Cheikh Omar daf ko doon jàpp rek pour def ko. Euh, meuble benn meuble wala. wala Cheikh Omar sanguinaire la woon dafay yore jaasi. déedéet jaasi dafa yoroon jaasi pour pour xeexal islam. moo ko taxoon jur. te def na ci loo xam ne kenn defu ko ci. ndax tax na suñu réew mi lislaam ba tey yegg fi mu yegg man mun rek tabaarakallahu xam na kan mooy Cheikh Alhaji Omar mm-hmm. man dama gis ni gàcce la jaasem ñëw te waxuñu ne Cheikh Alhaji Omar lii moo doon tax jaasem ji ñëw mm-hmm. te mooy lislaam rek du woon ay jaasi mott yi mu mel euh, bi ñuy gis ci drapeau bu Arabie Saoudite bi sax kay symbole li nga li nga li nga moom li nga moom laa ilaha a allah muhammadu rasulullah mm-hmm. kenn wax naa ne kenn xam nga sëñ Babacar Si li mu ko wax abu diine wa taqwa axu sidqi wal huda walam yarda maa laysa la ali anhu radiya déggal loolu Seydi Xasan oh, ni mu ko ràbbee rek <laughs> waaw kooku daawul def loo xam ni yàlla gërëmu ko yàlla gërëmu ko waaw léegi suñu yimee nag def ko boobu événement hmm. ñëpp toog hmm. kilifa diine yi toog hmm. ba pare ñu indi jaasi ñu wax ni jaasi jii de jihaada taxoon mu ñëw ndax lan tubaab bi taxaw nga mel mu mel na dañu coloniser ba tey te daa san loolu gàcce la. ah mu mel ne daal mbuumam njaam léegi mu ngi fi. waaw mbuumam njaam bu mag la ba tey ñu ngi ñu colonisé nag dama xamul nag ñun kañ la ñu am suñu indépendance. Mm-hmm. <laughs> waaw euh, jërëjëf euh, euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Macky Tall. Mm-hmm. suñu dëkkandoo yële fi ca Mali. Mm-hmm. xëy na sax yi fi xew moo tax ba ñu fàtte lay xew foofu. waaye ba léegi njaw des na xàmbin. muy euh, fipp fipp yay am ca biir mhm. te ku fa jógee rek daf lay naan yëfi ba daal ba léegi réglé wul mhm. euh, nga yaakaar ne Sénégal en tant que ki mu doon ci wàllu diine en tant que ki mu doon ci wàllu histoire politique ci Afrique mhm. amul ci part de responsabilité wala amul bokk rôle bu mu war a mën ci loolu pour dem rek la ko définitivement yëfi jeex waaw sëñ xam nga ci diplomatie wala diplomatie religieuse. sëñ Xassane xam nga terrorisme nag moom. c'est un problème boo xam ni wute na ak waaw terrorisme bi xew moom kooku wute nag ak lislaam ndax ndax yàlla subhaanahu wa taala euh, li mu wax ci alquran euh, bu leen rayante seen biir hmm. dégg hmm. wax nag ci alquran lu dul jeex te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag fa la risaala yam bi hmm. mu wàccee alquranam bi ah wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannam léegi nag yow mi nga xam ne da ngay woote sa bopp lislaam nga fekk nit ñi ci benn plage ci réewu lislaam nga rey ñëpp wax ni yow jihadiste nga Seydi Xasan boobu defe naa Sénégal loolu du jihaad nay faral di wax ni tamit suñu mag ñi nekk fii ci réew mi wan nañ loo xam ne defe naa lislaam bu bees buy jaral nit ki dem takk ay bomb doo ko jaratu ko ndax lépp luy lislaam rek jàngale nañ ci lislaam bi ko yàlla bëgg xëy na nag topp bi moo des loolu su amee defe naa ne suñu suñu mbokk ñu suñuy dëkkandoo lañu li ñu leen war a dimbalee Sénégal mooy xanaa rek xeex dimbale leen ci armement dimbale leen ci xeexat nir lan ndax lan ñu xeex loolu du jihaat waaye banditisme la du terrorisme mais banditisme la mm. ay ñu mel ni ñu melul ni ñu war a mel ñu mel ni ñu melu mel def li ñu warul def jël nag bëgg jël Afrique en otage ku defe na africains yi ñoo war a taxaw mm. ku si nekk indi si sa wàll nga jàppale réew moo xam ni tabaarakallah ñoom ñoo nga fa. ñoom ñëpp suñu dajee daal def naa war nañu mën a régler le problème. en tant que Union africaine en tant que CEDEAO. bu wàllu gouvernant yi. su ko defee defe naa diine su boobaa li ci li ci li ciy def rek diine. mooy wane ni terrorisme boobu du jihaad. Mm. du masalan jihaad joogu du diine. waaye nag jihaadu nafs la jihaad boo xam ne da ngay topp sa bakkan boo xam ni tabaarakallahu lu la neex nga def ku la neex nga rey nekkoo ci diine doo julli doo def dara su ko defee ku boobaa nag kooku su ku boobaa duñu la tuddee jullit Seydi Xasan koo dañ lay tuddee tooñkat tooñkat nag li war ci moom mooy ñu yar ko ba mu fexe dootul tooñati waaw defe naa loolu suñu réew yi suñ ko defee dimbalee Afrique dimbalee Mali ku mel ne Sénégal war na mën dimbale Mali ku mel ne Gambie war na mën dimbale Mali su ko defee nag loolu mooy tax defe naa ñu mën a régler ce problème là une bonne fois pour toutes et euh, dinaa taxawaat itam euh, ak beneen tomb. Mhm. muy euh, ñu ngi ci jamono joo xam ne. Mhm. jamono ju yomb tasaare ay mbir la. li fi xew léegi mën nga ko partager rek mu dal di dem Chine. Mhm. la nekk siin nga partager mu ñëw Sénégal. loolu xëy na waroon na mën a nekk lu baax. waaye nag ni ñu koy jëfandikoo mu mel ne nekk na lu contraire lool. Euh, loolu sax en général taxul may laaj waaye la ca concerne diine léeg nga gis ci réseau sociaux yeeg yu mel noonu mm-hmm. ay mbir yoo xam ne ci turu diine la ñuy wax ne moom la wala ay nit ñuy wax ci turu kër wala ci turu fekk impliqué wul kër gi mm-hmm. ñu tasaare ko ba ñëpp jot ci mm-hmm. te mu ngi mel ne nit ñi loolu sax dañuy war léegi boo gis nombre vie boo gisee nombre vie yu bari rek xamal ne <laughs> la ca nekk baaxul. yu baax yi sax daanaka vie dafay tuuti. loolu tiitalu la en tant que koo xam ne. Mhm. li la tax a jox mooy jubante askan. Seydou Hassan loolu lu tiital askan bi la lu tiital nit ku nekk war nga ci tiit ndax itam mu ngi commencé yàq ba ci li ñu doon waxtaanee feebar bi rek. Mhm. ku nekk tey jug na ci def ci. beneen corona beneen corona la <laughs> mooy internet. boo xam ne da koy jëfandikoo ci lu wute ak lu baax. xam nga Sëriñ nga toog ci sa biir nekk dafay dugg ci yow mi nga xam ne dangay ngay tudd Mouhamad. te ndox ñooñu rek kay def ñi tudd Mouhamad. ñi tudd Fàllu ñi tudd Saalixu. nga dugg si sa biir nekk nga xam ne yow da nga ni gëm nga yàlla mi nga xam ne foo nekk mu fekk la fa. gëm nga yàlla mi nga xam ne dafa ni la wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid maa ngi la gën a jege sa buumu baam buumu baat yi. nga tëju sa biir nekk xam ne yàllaa ngi lay wéttali nga ubbi sa internet wax lu la neex doomu gor Sidi Xasan mu wër la ne amul mu ne amul hmm. nga yàq gor yàq gor goo xam ni askanam dana ci yàqu njabootam yàqu ci hmm. deram yàqu ci te xoolatoo ci subhaanahu wa taala mi nga xam ne yow mi ni nga wéetee di def lu bon loolu mi ngi lay tiim te de mi ngi lay xaar tamit ñu indi la nga war a wéeteeg moom hmm. ñooñu defe naa ni inconscience Seydi Xasan moo jàpp ñenn ñi ak ñàkk nag am ba tey jikko diini hmm. jikko ju rafet hmm. xam nga sa kirsaan kilifa gu tedd ga hmm. daan na wax wax ju rëy ji innamal umul axlaaq ma baqiyat sidi sidi lamin ndeysaan fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu waaye defe naa nag foofu la toll Seydi Xasan tey jikko yu baax yëpp jikko yu rafet yëpp mu ngi dem Seydi yu bon yu bon yi di ko remplacer jikko kersa amul xam nga Seyd Hadj Malick radiallahu anhu dafa am lu mu waxoon ni Jibril dana dellu si ginnaaw yonent bi fukki yoon min baadihi nazilun yaa an fa yarfau yaa fi rafaihi qul fasaadul xalqi wal fukki yëf fukki yëf yoo xam ni Jibril day wàcce te xam nga Seyd Ahsan léegi da ngay dégg ci gannaaw clavier ni Jibril daf ma feeñu biig doo ci mën dara <laughs> mu partagé ko gars yi mu ko gars yi. ñenn ñi gën ko te li nga wax léegi da ngay gis ku partagé lu mel noonu li muy am ci fii kenn xam lu mu tey dal naaw dem ci ay. ay millions. Mhm. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadis la ni Jibril gannaaw wàccam sama ginnaaw dana wàcc ñu fukki yoon. mu ni fukki yoon yi dana yëkkati fukki yëf. ah dana wàcc fukki yoon yoo xam day bu bu ñëwee day. yëkkati fukki yu baax mhm. mu ni dana. dana yóbbu barke yum nun amatul ci alal yi amatul ci alal yi léegi. c' est ça da ngeen lu nit alal alal barke amatu fa. ndax da ngay gis alal alal borom alal joo xam ne soo ko gisee bëgg ko sarax. xubboon nee na teguwul fu mu war a tegu léegi. waaw. Mm-hmm. raxamun. Mm-hmm. yërmande amatul. Seydi Xasan da ngay gis léegi ku war a yërëm. di di te yëpp nag ci internet bi koy dimbale. waaw maadilum. maandu amut maandu amut. Hmm. waaye bi ñu gën a mooy waxeyaa. kersa li moo gën a ñàkk sa. kersa. bu amoon fu ñu koy eh, importer daal di indi amatul fenn ci jigéen ñi amatul ci góor ñi. ah zuhudun. dëddu àdduna amatul. Hmm. ñun sëriñ si sax ñoo gën a bëgg àdduna léegi. <laughs> saxa. a nga tabe. dégg nga mu dem ba ci yumnun wa xubbun wa raxmun maadilun wa xayaa sabrun amatul wa zuhdun saxaal quraan hmm. mu ne alquraan sax daañu ko yëkkati Seydi Xasan hmm. moom Jibril ko defee rek mais sooy xool Seydi Xasan léegi alquraan ni ñu koy jàngee hmm. neex ban neex ban lañ koy jàngee ak lan vie yu bëre da ngay gis léegi yéen saa yi ma gis sama vidéo daal ma fan sa club diw jànkatu alquran la mu toog si gaal ga di jàng alquran nga xam ni ne na yàlla waxe woon alquran nañ koy jàngi si daxsan ah hmm. ne yàlla waxoon ni ñuy jànge alquran hmm. te yow nga mën a toog fu la neex àll bi jàng alquran hmm. fu la neex nga toog jàng alquran nit ñi di yuuxu di daanu te yàlla waxul woon loolu wa ida qura alquran fastamiu lahu alquran suñ koy jàng nit amul droit yëngu. wa ansitu wa ansitu. Ah, message la daal. c'est un message. Hmm. laallakum turhamun mais tey nag alquran jaratul dara. ñu hmm. baal ma ci wax ji mais jàngin bi. parce que jàngin bi moo fi nekk te àndatul dara ragal yàlla. Ah, euh, message bi mu war message jànginu wut buzz la. Hmm. jànginu maa fi dàkk baat. jànginu samay vues yu bari na. <laughs> moo tax moo tax li yonent bi waxoon ni jibril dana yëkkati yu mel noonu dafa mel ne léegi alquran yëkkati nañ ko waaw loolu nag li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wasallam ni bari na ñuy jàng alquran làmmin yi ci làmmin yi la yem soo defee nag loolu Seydi Hassan mooy yàq réew mi yëpp nag ci internet bi la jaar internet bi la ñu yàqe internet bi la amatul kersa da nga gis jigéen bu simmeeku si internet bi sànni ko ñëpp di ko gis yoonam nekku si di góor goo xam ni tabaarakallaahu ñu ngi ñu tuddale ñaari tur yi nga nekk ci internet bi di def sa mission. Mm. ana kersa bi. Mm. nga xam koo xam ni tamit euh, tabe amatul. gis la am. ñu ngi si internet bi ngay sànni say xaalis. Mm. te yooyu yëpp Seydi ay internet bi mooy waral. mooy alimenté loolu mooy alimenté loolu yëpp. kon nag su ko defee loolu tiital na nit Seydi Xasan. waaye teewul nag tabaarakallaahu ñi nga xam ni ñu ngi jubal ñoom tam ñu jël seen côté rek. voilà euh, bu ma toogee ku mel ne yow nag. Mhm. Euh, koo xam ne doomu daara ji la jàng na li mu war a jàng. Mhm. Euh, mu ngi itam tasaare xam-xam. Mhm. ci biir askan wi. dinaa sawar ci laaj ko mm, benn laaj muy. ndax est-ce que jotul. ci ñu mel ni yéen ngeen créer benn conseil boo xam ne dafay. dafay institution institutionnaliser mm-hmm. yenn ci valeurs yi nga xam ne am na ci lislaam te exemple bi ma ciy joxe mooy mm-hmm. par exemple azaka ak waqf azaka ak aw aw est-ce que nekkul na bu ñu ko taxawaloon ay nit ñu mel ni yéen mm-hmm. gérer ko di dajale euh, koom gi fa ñu ko war a dajale di ko dugal fa mu war a dugal. Mm-hmm. di ko génnee di ko def fa mu war a def. Mm-hmm. loolu est-ce que narul woon nekk solution bu efficace. Mm-hmm. ci problème boo xam ne da nga koy jànkuwanteeg moom toujours ci biir askan yi mooy kenn tase ci mbedd mi indi dara nekkul ci kër ga boo amee dara nga jox ma. wala koo xam ne jàng na ba àgg fenn war a am euh, bourse pour dem fenn mu të mu wala koo xam ne feebar na. mu dem ñu laaj ko loo xam ne amu ko. Mm-hmm. feebar ba gaañ ko. Mm-hmm. yooyu yëpp est lii bu amoon. du mm-hmm. wàññi loolu. Sëñ Xasan fa tabaarakallaahu question bu am solo la mais Sëñ Xasan defe naa ni li ñu war a njëkk euh, defar <laughs> mooy fexe ba lislaam bi daje nekk benn. xam nga tey ñun suñu problème réew mi. mooy li ma la wax sànq rek. ku si nekk sa tariqa ngay taxawal. moom la ñu soppi diine daal. moom la ñu soppi diine diine moo remplace tariqa tariqa remplace moo remplace su tey jii Seydi Hassan dafa am journée l'islam nga xam ne xalifa yëpp dañuy dajale dañuy dajale foir ba par exemple. ni tey jii daal bisu l'islam am. ñu waxtaanee diine ji. ok bisu l'islam moo am. Hmm. mais Seydi Hassan est que dégg nga fi bisu l'islam. Hmm. kon <laughs> nag balaa yàgg di ko woote xam. <laughs> loolu mooy suma problème. masalan woote bis boo xam ni xalifa yi réew mi yëpp di xalifa lislaam yëpp dañuy taxaw ci benn jataay. Hmm. ñu waxtaanee réew mi ak. ñu waxtaanee réew mi ak diine ji. Hmm. su boobaa solution dina am su boobaa ngay mën taxaw lu mel noonu. Hmm. xoolal tey Seydou Hassan beaucoup d' associations religieuses qui se disent ñu ngi wax ni ay association doomu religieux lañu. des chefs religieux tey kii woote fee maa jiite association chefs religieux. keneen woote fee li maa yore naa association des chefs religieux mais Seydi Hassan loolu fan lay fan lay sotte mu jot nag ñu nosee lépp daal ko benn. mais defe naa ne ma ne nag tey jii dafa jar ñëpp daje. ñu waxtaane réew mi waxtaane l'islam ça veut que li suñu mbokk yeneen diine yi di def dañu ñoom daañu daje rek pour seen diine amul pàcc seen benn diine la ñuy daje waaye ñun tey. ñu ngi woote ku nekk yaa ngi wooteel sa kër ñun taale ni ñu ngi woote. journée tel tel journée tel journée Cheikh Omar. keneen keneen journée keneen nangam nangam mais kañ la ñuy wooteel journée yàlla <laughs> Seydi Hassan. Mm, mm. mais defe naa journée yàlla suñ ko wooteeloon defe naa affaire bi dina baax nag. loolu daa nekk première jéego. waaw. pour ñu mën a xam fan la ñuy jëm. ak nan la ñu mën a exploiter diine ji su ko defee nag këru diine bu nekk nag bàyyi sa intérêt personnel te wax intérêt général. Mm. boobu itam jafewaat. waaw boobu tamit lu nekk lu jafe la su boobaa nag tant loolu amul du ñu mën a régler problème mu diine ji masalan su boobaa mën nga ñoom daañu mën a xool lan la ñuy fexe ba ñuy joxe azaka nag daje nag tey jii. ñu dajale ko def ko benn béréb def ko benn béréb. Mhm. pour ñëpp pour ñëpp nag du pour tariqa bi du pour tariqa bi pour diine. Mhm. su boobaa ni mu am transparence am ñoo xam ñu tànn leen yéen koy jiite. Mhm. kii kër gi la bokk kër gi la bokk yéen koy jiite créé yéen a yore affaire bi. su boobaa nag ku leen jox azaka yéen yéen a séddale mais Seydi Xasan tànk nag daje bi amul loolu du mën a am waaw defe naa fa am priorité hmm. mooy ñu fexe lislaam daje hmm. nekk benn mooy li ñuy naan tawxiidul kalima ak kalimatu tawxiid ko tawxiidul kalima benn la baat bi door a song li tax ni benn yaakaar parce que <laughs> benn bi daal mooy suñu problème ñun Sénégal mooy premier jéego bi nga xam ni war na am hmm. mooy kilifa diine yi xam ni te itam ku nekk xam ne nag yàlla ngay wooteel ku nekk xam ni li nga tax nga xew mm-hmm. mooy yàlla moo la xewal mm-hmm. waaye ma lan moo war a kale parce que mm-hmm. euh, koo laaj d'accord na ci loolu waaw mais xam nga sëriñ na pour def ko waaw sëriñ Xasan xam nga dagg mën na ko def xam nga mënoo wax nit ki def na pour mu def xam nga mënoo wax nit ki kaay ma wooteel diine mu ne la duma parewu ma <laughs> ah, jëf bi rek jëf ji moo am solo jëf ji ça veut dire suñu xalifa yi jug ni tey dina ngeen mi fekk Dakar. béréb sangam waaw am nañu béréb yaa ngi fi du jeex. Hmm. béréb yaa ngi fi du jeex tey. pour daje sëñ Abdou daan def ci. sëñ Abdou daan def daje si hmm. benn kàpp tabaarakallah ñu fekk leen foofu. dégg nga de wala pourquoi pas bala Dakar sax ñëpp nañu tey nañu daje Touba. Hmm. wala tey xalifa diine yi nañu dem daje Tiwaawan. wala nañu daje feneen ak feneen. su ko defee nag dafa am loo xam ne su amee Sidi Hassan diine su boobaa dina réglé wu. problème mu diine ji dina réglé wu mais tant que nag amaguñu boobu boobu boobu boobu booloo nga xam ni toujours dans Sénégal li ñu mën jàng mooy innamal mu'minuuna ixwatun mën nañ ko jàng waaw mais mënuñu ko appliquer <laughs> jot na nag ñu mën ko appliquer xam nga innamal mu'minuuna ixwatun nga ko aaya bu sonn la ci aaya bu sonn la ci Sénégal ko nu nekk jàngeen nañ ko nu nekk firi nañ ko nu nekk waaye <laughs> waaye appliquer bi daal c'est Hassan mu des ba léegi defe naa moo tax diine ji tabaarakallah des <laughs> jërëjëf euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane euh, Euh, Macky taal mu nekk waxtaan woo xam ne bu am solo la. xam naa sax ku ku taxaw ci kanamu uh, géej. Mhm. boo tànqee itam. doone jeexal naa waaye dangay ngay naan feesle naa. xanaa bu beneen yoon rek nga ñëw tànqaat. loolu moo ñu dal ak moom. ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko ci euh, éloquencité bi ak euh, leeraayu li muy wax. ñu sant itam euh, ci ni mu amee disponibilité pour mën ñu accorder émission bi. Euh, waaye itam émission bi xam naa ne sénégalais dinañ ci gis seen bopp. ndax waxtaanee nañu réew mi ak li koy jagal. waxtaanee di nitu diine ak lu leen di nose mhm. waxtaanee itam avenir loolu yëpp ci biir àdduna bi. Mhm. Sénégal benn pàcc la ci biir àdduna mhm. bi am na nu mu war a mel pour bokk. Afrique benn pàcc la ci àdduna bi am na nu mu war a mel pour bokk. yooyu yëpp. junj na ko ci biir waxtaan wi mu nekk waxtaan wu am solo woo xam ne euh, ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. Euh, xanaa rek ndap yu fees la waaye <laughs> nekkul euh, xam-xam bu jeex. bu ko defee rek incha allah beneen yoon ñu ñuy tànqaat leneen. Mm-hmm. ma sant itam équipe bi nga xam ne àndoon na ak ñoom Saliou Bey. ci mm-hmm. caméra bi ànd ak Pape Mody. waaye ñi nga xam ne itam ñoo ko monté Barak mbay ak équipe bi mu àndal mm-hmm. naka noonu itam ñi ko exécuté ci régie bi yëpp ñu sant leen gërëm leen jox leen rek beneen dox daje ci seen émission bii di tànneef asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu